ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications. tey nag maa ngi wax ci turu cadre de concertation pour le renouvellement du FEP tey nag ku gis kanam xam ne li ñu fa indi neexul. mooy benn nit bëgg a jël lu mbooloo bokk def ko sa moomeel muy Babacar mi nga xam ne mooy président FEP ak lobby bi mu àndal ndax ku ne xam na ni depuis 2019 moo ngi fi bañ ne du jug ci fédération bi nga xam ne fédération des élèves et des étudiants du département de Pikine élèves yi gisuñu seen bopp étudiants yi gisuñu seen bopp ñun nag ñuy représenter suñu commune taxaw ne loolu dafay dakk te bu doon sax Babacar dafa illégal rek yem si mais dafa illégal ba pare liggéeyul ndax boo ñëwee si règlement intérieur FEP mu ngi ñëw si article 1 mu ne les membres du FEP sont élus pour un mandat de un an renouvelable une seule fois Babacar depuis 2019 moo ngi fi FEP jël feb def ko loo xam ne ne moo ko moom xajalu ci kenn liggéeyu ci nga ñëw ci article 12 ba léegi ci règlement intérieur renouvellement de la FEP mu ni il est demandé au bureau de la FEP de procéder au renouvellement chaque année et au courant du mois de février Babacar depuis bam mu toogee 2019 élection defu ko saa yu jotee subvention def ci la ka neex kenn du wax ñun nag nit ki boo ko buuxee ba mu sës si bunt bi dafay weeku jàkkaarloo yow te dañoo sës si Babacar à l'exception jéemoon na fee def benn élection mag wi Brave article 13 bi nga mandataire. Une day wax ci ne commune bu nek da ngay wut 5 représentants pour assemblée générale bi so jëlé sama commune la commune de théo Diacksao ñi me représenter man mi en tant que le président qui est légal et légitime ñi ma représenter xamuñu len nga ñëw ci article 9 mu ni la faiblesse la structure maire des structures dans les 12 communes d'arrondissement de la ville de Pikine

les membres désignés par les instances et organes de la FEP et travaillent à divers et selon peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Non-respect des principes et règlements démocratie de la FEP. Usage à des fins personnelles des biens de la FEP. Non-respect des dispositions statutaires et du règlement intérieur. Ces sanctions peuvent aller de l'avertissement à l'exclusion en passant par le blâme et la suspension. Babacar avons un usage personnel Nous avons usage ak ay parce que bu gens sax nit ki ñu dañoo un banlieue nga xamni ya y a des étudiants yo xam buñ la waxee conditions yu ñuy dund Babacar xolul loolu bu jëlee subvention ci boppam la ka tek amul activité bu mu def lo xamni li lii mën nañ ci tek suñu bët ne li logique na nga ñëw ci bilan de parcours article 41 ba légui mu ni il fait l'obligation du bureau de l'AFEP de tenir un bilan après chaque activité au plus tard deux semaines à compter de la clôture de l'activité en outre le bureau doit aussi tenir un bilan tout semestre Babacar mosul def sax bilan parce que boy def bilan day fekk nga def activité bu légal bo xamni tek nga ko ci yoon ken xamul lu muy def xamuñu subvention yi nu mu koy def xamul sax li xew si commune yi parce que li muy fàtte mooy bu ñu ville de Pikine c' est parce que y' a 12 communes boo dindee communes yi ville bi nekkatu fa soo waxee mun la ville de Pikine la représenté nekk ci lu ko neex loolu nag lañ bëgg mu dañ. donc man maa ngi wuyoo Amadou Sonko nekk euh, membre de la fédération des élèves et étudiants de de Pikine. comme ni ko sëñ Xaadim waxee rek euh, fédération bi sooxe na parce que depuis 2019 ba léegi euh, man 2019 laa dugg ci fédération bi àndoon ak Babacar pour la première fois ci ci ci mandat bi donc euh, wax na ni depuis 2019 ba léegi renouvellement amul donc 2022 leen ñëw pour def renouvellement mu nekk ay renouvellement yi nga xamante ne nii jaarul yoon euh, mu amoon ay njuuj njaaj yu bëree bëri bëri nga xamante ne xewoon na ci renouvellement yooyu noonu ba assemblée générale boobu noonu amul depuis le 21 août kon ñu jàpp que ni depuis le 21 août ba léegi amul amul structure euh, fédérale bi nga au sein du département de Pékin. donc fédération bi actuellement existé et aussi nous représentons ko représenter aussi légitime ñu ñu ci biir aussi ba situation bi xewee aussi ñun ñu rek croiser croiser les bras dox nañ ci ay tànk jàmm seeti nañ autorités aussi ay anciens membres yi nga fédération bi lañ aussi le président du conseil départemental de la jeunesse. parce que nous avons xew ba assemblée générale bi le 21 août parce que boobu nekkuñu won kuréel man en personne dama bind la au maire de la ville xamal ko situation bi nga xamanteni ne nii am au sein de la fédération depuis booba léegi réaction amul mais quand même bañ démé ba teg ben cadre de concertation pour le renouvellement de la de la fédération mu nek ay mu nek ben cadre bi nga xamanteni ne nii étudiants département de Pikine ñoko consulter di sakku à ce que fédération bi ñu renouveler ko ak situation yi nga xamanteni ni mooy am ben nit accaparé fédération bi jël mooy fédération bi diko def na nga xamante ne moom noonu la noonu nga ko noonu nga ko bëggee yaag say quelques groupes de personnes loolu lañ bëgg mu dàgg parce que étudiants yi sonn nañ ñu nekk dans les universités publiques yi sonn nañ ci biir loolu aussi lañ bindee le maire de la ville ñu bind le préfet bind le sous-préfet de Pikine Daagu Daan booba léegi nag ñu ngi leen di xaar ñu ñu réagir di leen wax ni kat seen réaction day am solo par rapport ak fu situation bi toll parce que nit nag buy artu ci benn situation bi nga xamante ne mun na jur suba jàngoro je pense que autorités yi war nañoo mën a jóg pour saafara loolu noonu war nañoo mën a jug pour xool la nga xamante ne ñun moom la ñuy ñaxtu depuis le 21 août ba léegi. loolu appel la bi nga xamante ne ñu ngi koy lancé waat une fois de plus autorité yi bu ñu déggee aussi nañ xam ni la situation des élèves et étudiants de Pikine doxul en particulier la fédération bon di continuer juste ci logique bi nga xamanteni ni Sonko mom la doon wax léegi ni mais dafa am lo xamanteni ni il faut que ñu xam ko gis nga nit buy entêté wu ci ben affaire rek c'est parce que def na fa ay njombe wala ay luuxóor te ci ay luuxóor lay def mom ak ñimu andal lui et les vampires qui l'aident à sucer le sang des étudiants et élèves pikinois parce que comment se fait-il que yow tu n'es pas légal tu n'es pas légitime ay nit réunir seen bir ne dañ laa octroyer yooyaay ben mandat pour nga doxal mandat pour permettre la lor étudiant pikinois parce que yow étudiant kii waxal agent municipal la commune ñuy Nord la am la fédération des élèves étudiants du département de Pikine ba nga ñëw nga ne président non seulement il y def say malversation financière ci di pour toog fa saxal fa sa bopp mel ni nga situation bi depuis ay mois fay am fo nga xamanteni nak fa lay yem fi mi yem nak moy wax na ko adressé nañ ay courrier adressé nañ ay mail à l'ensemble des responsables du département de Pikine ñu ngi leen di déglu gis nga buñu réagiré situation bi résidul alhamdulilah mooy li gën bu réagirul situation bi persister ëllëg ci biir lépp li nga xamante ne tout le monde est responsable de ce qui va se passer parce que il est inadmissible à ce que lu doy ni fédération des élèves et étudiants du département de Pikine ñaari nit bu ko gérer ak lan ak lobby bu nek sen ginaaw di len jappale pour ñuy muccu dereetu étudiants ak élèves Pikine jot na ñaari subvention yu 10 millions 10 millions ñaari subvention yoy nonu na len yalla umpu ci bilan bi nga xamanteni ni moom la génnee parce que do ci dégg lu dul diw lebal nañ ko xaalis diw al nañ ko nangam au moment où les étudiants souffrent dans les universités au moment où les élèves peinent à trouver des moyens pour satisfaire leur cursus scolaire ñun dañu bokkon ci bureau bi man j'étais le président chargé de la commission formation et emploi man mi di wax ak je suis parmi l'une des rares personnes qui ont assisté à l'ensemble des réunions de la fédération gis nga nit bo amé mandat ben année nga war ko def djugé fa ben année boobu noonu jeex ngay xol no la fa saxalé duñ la ko may bamu commencé ci lobby la wax ne hé bamu mu ne ma nam arrêtel da nga may nit ñi jaam mu ne non dafa may bañ may fal dañ ma waxoon ni structure yo xam dañu dé sama prérogative le pour me redressewaat leen ma ne leen li nga deful li nga deful ci at do ñëw ba fin mandat diko def tu as fait ce que tu avais à faire bilan bi ngay ñëw défendre mu bax wala mu bon tout le monde est comptable parce que ñun ci lañ bokkon mais nak lolu du la jox droit nga bugg fee toogaat ne da ngay demeurer jëm fu ken xamul il faut savoir partir à temps donc nous on l'obligera à partir de force ou de gré man euh, lancé bi may démé moy euh, ban impact le fait surtout au niveau des universités, parce que je suis étudiante à l'Université à de Bombay. Et euh, depuis 2020 jusque-là, on n'a pas vu quelque chose, de, quelque chose que FEP, si je peux dire, a, à faire pour nous. Parce que déjà, Bimafademe 2020, euh, amical bi dissoudre donc euh, c'était les autres amicaux euh, qui étaient obligés de, de nous accueillir. L'année dernière, en 2020, avec l'appui du président de la coordination, Mohamed Oussar, donc euh, on avait pu euh, faire de telle sorte de mettre de nouveau en place l'amicale. Et depuis Bobo, on essaie de faire le maximum. Parce qu'à Bombay, j'ose dire que étudiants au pas mais on vit des conditions tellement difficiles, des conditions vulnérables. Déjà le climat, l'eau, on n'en parle pas. Si on ne voit pas euh, l'appui de, la FEP, là, ça, pose plus de problèmes. Donc sur ce, ce que j'incite, c'est que nous, en tant que jeunes, de Pékin, en tant que futur de, de, cette ville de Pékin, il est vraiment temps pour qu'on reprenne les choses en main. Nous, en tant que représentants d'étudiants, comme l'a si bien dit euh, mes camarades nous ne bàyyi pas mu quoi parce que ça c'est une bataille de génération Nous ñoo fait génération bi générations. La le bataille que nous sommes en train de mener nous ne gagner. parce que bientôt nous sommes à notre porte euh, de sortie ku nek day dem nek ci leneen ñu fi accaparer wu pour des biens communs mais lan lañ jug di xex les étudiants et les élèves ñu dans de très bonnes conditions imaginez tay un parent d'élève de la banlieue tey ay élèves ont xamante conditions des bëgg cours de renforcement mais ils n'ont pas eu les moyens da ngay parents des fois dañ leen di taxer cours de renforcement 000, 5000 3 000, alors que eux la fédération au moins pouvait jouer à ce rôle à wala mu subventionné l'eau, au moins ne serait-ce ben deux mille wala ben mille francs bu parent bi de corriger au moins ñu sentir l'existence euh, de, la Fédération des élèves étudiants de Pékin. C'est ce, comme l'a si bien dit mes frères, nous lançons un appel solennel après avoir utilisé toutes les méthodes nécessaires yi nga xamante ni aboutir méthode nak ñong koy c'est la non-violence. Nous, on prône la force de l'argument au détriment de l'argument de la force, pour le moment. Parce que tu fait fu nous pour négocier loolu non dem négocier Mais pour démarrer ñu aussi administrativement Les li nga xamante ni moom parce que nous, avant tout ay étudiants donc on va essayer de prôner la méthode intelligente la méthode qui lañ nekk jusqu'à preuve du contraire Si on gisul nag li nga ne xam nañ ko wala li nga engagement crypto personnel et on va prendre la situation à main et dans ce cas peut-être le département de Pékin aura un autre envergure et on ne le souhaite pas donc euh, monsieur le maire Thimbo et les autres préfets nous ñoo ngi leen di ñaan ngeen jël ay yi nga ni la war comme ça le plus vite possible nous dem à la renouvellement de la fédération. ils interpellent directement monsieur le premier magistrat de la ville de Pékin, monsieur le maire Abdoulaye Timbo, le préfet de la ville de Pékin et les deux sous-préfets, nous ngi avons dit, woo ngeen ñëw def intermédiaire pour jàmm am parce que bëgg nañ image u Pékin ñu sàmm ko et depuis lors nous ngi ci ay négociations mais il paraît que ki ñuy waxal bëgguñoo dégg ñu ngi woo askan bi yëpp ndax képp ku fi nekk sa kër am na élève wala am na étudiant kon lépp lu dugg ngir élèves yi étudiant étudiants yi daa war a aw ci lu leer. je pense que looloo nekkoon euh, démarche yi nga xamante ni via les autorités via euh, les anciens membres de la fédération mais via aussi le président du conseil départemental de la jeunesse Ahmed Nous avons parce que euh, une fois de plus sur deux casquettes parce que non seulement un membre un ancien membre de la fédération des élèves étudiants de Pékin, mais Benen bi mooy le président du conseil départemental de la jeunesse la fédération des élèves étudiants de Pékin, parce que képp kuy étudiant âgé de 0 euh, à 35 ans jeune nga donc yaa ngi conseil départemental de la jeunesse Lolo looloo nous ñu ñu ñu ñu ko pour que mu baña am amalgame pour que gars yi xamni kat situation bi kat Ameth Gueye da cee am baat donc président Ameth Gueye ñu ngi lay wat une fois de plus à ce que nga nga nga xoolaat nan nga wara mëna mën taxawoo situation bi ni. ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification